qui rentre euh, ci fiefam fief bo xamante mosu koo abandonné gisoon nañ fi euh, depuis que force l'ordre bu ko japp jàpp mm. Ziguinchor taxawaay bu mu ci amone mm. ba dem sax di naan Ziguinchor du cité kër gor gui voilà ñëpp gisoon nañ mm. ko fi en tout cas mu don ben ñëw bo xamante ne li ko calqué lenn rek la c'est l'espoir l'espoir d'un Sénégal nouveau l'espoir de nous mu tudd sax benn ère de souveraineté bi nga xamante ñong koy xaar en tout cas sur le programme

ni Ousmane Sonko fi génn alors euh, tey mu daal di fay delluwaat euh, stratégie la wala kon euh, peut-être li nga xam ne Ousmane Sonko doxal noo le fait que mu daal démarrer li nga xam que moo sa campagne électorale. waaw xam nga d'abord Sénégal dañu am benn configuration géographique bi nga xamante ne par rapport ci configuration géographique yi da ngay gis ni kenn ku ci nekk rek ci zone bi nga nekk day am benn caractéristique bu muy def ci yow. Mm. ku xam Ziguinchor xam son histoire dans le Sénégal. Euh, peut-être que xawna ci niroog beaucoup de régions de la Casamance c'est-à-dire c'est c'est une zone bi nga xamantene les gens sont sont sont dans l'endurance mm. euh, les gens sont manam buñu jappé mbir dañuy dem ba jeex mm. da ngay gis ni euh, Ziguinchor malgré embargo économique bi nga xamante wax nga ko et puis c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président de la République décide de d'isoler une région entière mm. euh, malgré tout ça gisuñu benn yoon fu waa Ziguinchor di xaddi mm. gisuñu benn yoon fu waa Ziguinchor di génn maanaam di def loo xamante ne nit ñi dañuy naan euh, ñii ñoo def lii mm. maanaam ils ont tenu bon bateau yi dematuñ euh, fruit fruits yi dañ doon yàqu parce que pourquoi euh, la communication voie terrestre sax presque coupé même quand vous êtes dans une région de la Casamance nga dem c'était tout à fait un problème mm, mm. mais malgré tout ça Ziguinchor était resté debout et soudé comme un seul homme di xaar seen doom nga xamante Ousmane Sonko mm. Ousmane Sonko nak ñëw na mu ngi dem fofu amna ñaari mbir premier mbir comme ni ma wax la dom buy delu kërëm la donc là c'est nostalgique nga joggé ci jafé jafé euh, donte sax tay jamono maki kuñ japp prison ba bay la. Hmm. donato hmm. mënutuñ la gis comme un victime. dañ lay hmm. comme étant un héros. donc Ousmane Sonko il rentre héros chez lui mais aussi euh, comme li au delà de nit ko nga këram delu dellu dëkkam ñoo ngi ciy gis un homme politique qui rentre vers sa base. Mm. Euh, nga xamante ne quelque chose de symbolique. Mm. dans dans la campagne électorale. Mm. parce que tey leader yu bëri da ngay gis ni euh, les gens sont contentent ñu tudd sax euh, topp ci caravane nationale yi solo. mais li gën a am solo mooy c' le travail à la base. tey Ousmane Sonko si donne l'exemple de partir à Ziguinchor à sa base. da ngay gis ne aussi. Euh, ñeneen ak ñeneen euh, kenn ku ci nekk war a mën a dem ci basam ñi bàyyi leader national ak quelques délégations ñi mën a def le tour du pays donc Ousmane Sonko en tout cas euh, il rentre ci ci ci fief électoral mm. ñibbi na aussi ci dëkkam ñibbi na mm. ci base effectivement. Mm. donc dafa doon loo xam ne jafe na dina dina dina dina impact par rapport ak tolluwaayu campagne bi mais loolu loolu loolu impact bu rëy déjà déjà premier premier premier élément bi rek mooy que ni nit ñi toogoon nañ euh, le la la région entière a été privée de son leader. Mm. d'autant plus que sax Sonko est plus qu'un euh, qu'un leader régional. Mm. Euh, la ville de Ziguinchor a été privée de son maire. maintenant le retour d'Ousmane Sonko aussi ça dafa doonoon retour boo xamante ni ñëpp a ko xaaroon tey xam nga démb loolu laay wax l'une des personnes qui sont victimes du phénomène d'Ousmane Sonko c'est Ablaye Balde. Abdoulaye de quoi que l'on puisse dire à Ziguinchor dafa am bilan ku fa liggéey la ku demoon Ziguinchor avant et après Baldé da ngay xam ne Ziguinchor am na lu fa changé euh, mais Ousmane Sonko moo doon benn euh, outsider boo xamante ne tey euh, dooleem bi mu àndal ci ànd ci politique Tay jini du doole boo xamante ne kenn dañ koy négliger ce qui fait que tey bi mu demee Ziguinchor même avant sax muy dem parti Pastef teg na tànk ci lépp loo xamante ni en tout cas instance politique la hum. mu nekkul Mm. donc euh, malgré l'absence d'Ousmane Sonko ce flambeau de leadership a été maintenu donc Ousmane Sonko mu ngi dellu maintenant que sera le devenir des autres partis euh, notamment le parti de l'Alliance pour mm. la république qui mm. xamante en ñu de coalition. donc damay euh, ça ne fera que renforcer le bloc. de la coalition mais aussi aussi y a un parti vert la coalition Diomaye C'est euh, rek disons, il y a des leaders qui ont démissionné de, la mm. mouvance présidentielle pour rejoindre la coalition de Diomaye mm. donc aujourd'hui le mouvement d'Ousmane Sonko c'est cela que ça, traduit et demain aussi j'ai aussi fait quelques jours vous allez voir des leaders qui quittent le le camp républicain pour rejoindre la coalition de euh, c'est une semaine Wow, James. une semaine. rejoindre exactement alors vous voulez faire une émission euh, de Ramadan sur les.